di ko wax ni ko. dafa dégg ne Turquie. dafa dégg dégg ne Turquie. réew ma dafa am zilzaal bu métti bu fa am. nee na réew ma dafa am zilzaal bu métti bu am. mooy suuf su yëngu. waaw te loolu mooy suuf su yëngu. mu bokk ci la nga xam ne. mu bokk ci la nga xam ni. suñu borom da ko daan nattoo bu njëkk. suñu borom da ko daan nattoo bu njëkk. wala muy ci alag aw xeet. wala mooy di ci alag aw xeet. jaalna aaliha saafilaha nee na fa jaalna aaliha saafil nitu yonent yàlla lóot nitu yonent yàlla lóot jëdey bañ doon def seen jëf ju ñaaw ja ba ñuy dend seen jëf ju ñaaw ja bokk na ci la leen suñu borom alage bokk na ci la leen suñu borom alage hizatul ardi nag hizatul ardi nag bokk ak silsaan bokk la silsaan lii nag moom silsaan la nee lii nag moom silsaan la moom te mooy li féete woon suuf te mooy li féete woon suuf dem ci kaw dem ci kaw li leen newoon ci kaw féete suuf. sëriñ bi am ci ñoom yërmande. ne sëriñ bi nag am ci ñoom yërmande. fekk damaa ñëw may duggaat bi may duggaat fii rek. boobu dugg naa ci biir université. boobu dugg na ci biir université bi. la ma waat ne la ko waat ni ko. ne ma mbirum sëñ Tuubaa kat. ni ko mbirum sëñ Tuubaa kat. li mu seq ak lislaam. li mu seq ak lislaam. bokkul ak li nguur gi def. bokkul ak li nguur gi def. kon suñu waru suñu waru gan. kon suñu waru gan. ci diggante jullit ak moroom ci diggante jullit ak moroom ja ak taxawaayu Sëriñ Tuubaa ci ñun jabooti ñi mu jabooti ñun ñëpp eh, damaa bëgg téeméeri million jox la ko nga yëg leen ko